Touba Sam dañ koo gàttandu comme ni ñuy gàttandoo buur moom Serigne Xaasim Mbàkke yi ndax jàpp nañu kat lu nu bëgg ma nga ca bi mujj mooy moo leen talal ay lamp te nag yeneen sax yoo xamante ni ñu ngi koy def di wàllub social fii de saa su nekk dinañ ko am si moom. sa xam ne am nga loo def ci saam bii su doon da ngaa bëgg koo bale nga bëgg kuy wax wax nga ko bu yàgg sa bëggoo ko wax sëñ ba Sam ba doon ko xam ak yow ak yàlla laaj ma yaakaar su ñu toog fii jàkkaarloo ñun ne doo ñu jàppale doo ñu jàppale Macky de ñu ngi ñaan ku gën a gis Sëriñ Tuubaa li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal te Mbacke Balla doo seen seen seen tournée ñoom ko def ko sa kër gi yéen ñu ko ma Samba ak i la dañ la wateel Macky Sall dañ koy wateel sa sant ndax yow rek lañ gëm waaw ngir jënd sëñ moom sëñ moom lu mu bëgg rek dañ koy dox ndax maamam rek moo waral lii fu ne ñaar téeméer lañ joxoon sa borom kër mu am pàcc bi ba nga toog waaye nag li ko taxoon jóg bi la yoon mooy tamit wàllub social ñëwoon ngir finance leen ñoom jigéen ñi nga xamante ni jàpp nañu de kenn boolewu leen si dara bis nekk tey mën nañu jàpp ni nag loolee mu ngi seen ginnaaw ndaxte sëriñ bi dekese a fi mu taxaw 500000 francs CFA ngir jàppale leen ko. yéen nag soxna yi ma leen waxal na tey bu ma ñëwee li ngeen naa leen xam ne dama ko leen koy jox ngeen wëlbati ko seen biir loolu tàmbali la wante dañuy ñëwaat fas yéene ànd ak yéen seen i soxla lépp loo xam ne nañ dégg nañ ko nañ ko ànd ak yéen saafara leen ko te du am benn jafe bu soobee suñu bopp. dañuy woote suñu yaay nday njaay mu gore nga xam ne du lekk dara bàyyi kenn ñaari salaamaaleykum du ko ci lekk day woote ba ñu dajee mu xool ki yeyoo ñaari junni xam ne kii boo ko joxee ñaari junni mu liggéey delloo la mu jox ko ñaari xam ne kii boo ko joxee fukki junni mu liggéey delloo la mu jox ko fukki junni. sëriñ bi profitoo na ñëw si wàllub actualité jàpp na ni nag opposition bi foog ñu lem seen genn toog si ndax tey du leen mayeti tarafatal ay ni fii si Touba. Abdou Mbacke Bara Dolly moom toujours ay waxam ak lépp ay nar la ay ay ay kàcc la. di ko xamal nag ne ko mayuñu la dara fii si Touba ñoo ko bokk te ëpp la woon ni fi cër incha allahu rabbi nañ fas yéene ànd ak président Macky Sall nelawatuñu yellowuñu lépp suñu temps muy président Macky Sall. dimanche bii nga xam ne mu ngi jëm ci élection yi incha allah rabbi ñu fas yéenee ànd ak waa Sàmm ànd ak jigéenu Touba yi fas yéenee jox majorité président Macky tournée bi bokk na ci yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ngir nag waajal élection législative yi ñu jàpp ni kat ay carte dañ ci bëgg te nag kin bëgg ñu woteel ko moo di son excellence président Macky Sall ci listam bii di benn bokk yaakaar ngir mu am ndam ci assemblée nationale.